nekk diwlin ak yooyu <laughs> ñu ngi ñëw léegi euh, Pape Malick nga denc laaj rek ñu dem Sédhiou Bakary Konté oui a ah. Moro Abedi mbijandoro Abdoulaye kortanante ko moom be wijam mbijandoro mbe suuto koro mbe kontorna mbe tentula mbe jayla abarka ah, euh, Bakary Konté Sédhiou euh, waa Sédhiou lu ñuy wax Bakary ñu ngi gis nag sa ginnaaw rond-point bi dafa mel ni xam naa ni bu dul décalage horaire mais bariwuñu daf mel ni bariwuñu ci biti naka la dundee premier soir bi nga xam ne levé nañ couvre feu bi ak lan nga yaakaar ni ci lañu jëm foofu ci Sédhiou. waaw waaw xam nga euh, wax dëgg yàlla heure bi sax dëkk bi mu ngi xumb parce que euh, depuis ma taxaw fi yàgg na mat na une temps mais maa ngi gis euh, gars yi ñu ngi romb en groupe di dem centre ville donc mel ni loo xamante ne espèce de liberté laa koy woowe parce que da ngay gis ni dem en dem ma seetlu sax ñu bëri si ñoom sol ñu ay max sax ñu ngi ci mbedd yi di doxantu di dem donc kontaan mel ni ñoo xamante ne dañ leen libéré daal ah, euh, dem naa sax ba interpréter yenn xale yi di leen ne Eh, yéen a ngi doxantu xanaa lan la ñu ne de gannaaw dañuy sonn ci trois mois yi ñu ngi ci ay jafe-jafe mais léegi moom comme bàyyi nañu eh, comment dire levé nañu eh, mesure d'urgence yi couvre-feu bi donc tey dañuy doxantu centre bi libéré wu parce que gëj nañ am lu mel ni donc am ñenn ñoo xamante ne sol nañ seen max sax mais Bakary beneen préoccupation bi euh, alkaati yi parce que aussi bokkoon na ci sujet yi. naka la ñu taxawoo dañoo lever seen dispositif yi totalement wala ñu ngi quand pour soññaat ni parce que bopp baax na ñuy fàttali nit ñi ne masque beeg yooyu surtout dans les lieux. Mhm. privés yi sax ci guddi gi dañ ko war a. dañ ko war a takk quand ah. c'est ça parce que. maa ngi nii sax kenn kenn koo xamante ne sànq bu euh, def euh, direct bi ci ma interpellé ko mu ngi yor benn max mu ngi tudd Malang Malang asalaamaaleykum. ça yi. yaa ngi si jàmm. alors noo gisee noo dundee état d'urgence bi ak nuñ ko lever ak couvre-feu bi. waaw mbégte ak bànneex rek. mbégte ak bànneex rek puisque ni ñun actuellement li te def na ko vraiment. Euh, actuellement ñoo ngi mel ni koo xamante ni dañoo dañoo génn ci prison vraiment ñoo ngi dox ñoo def dox suñu soxla fu nekk fu bëgg dugg ñoo dem te kenn limité wul suñu liberté kon vraiment ñoo ñun daal sant yàlla quoi. mais ni nga gis xale yoo xam ne solo ñu mag si loo ci xalaat. non vraiment loolu damaa yaakaar ni ñëpp képp koo xamante ni yaa ngi koy def rek yaa ngi taw sa responsabilité parce que takk masque mooy li nga xam ne da ngay aar sa bopp aar li nga xam ni ñoom ñoo la jege. kon képp koo xamante ni yaa ngi dox bi ñu ñu lever état d'urgence bi ak couvre-feu warul tee ku nekk daal di dindi parce que président wax na ko la maladie est toujours là donc il va falloir que nit ñi di bàyyi xel a baax mhm. voilà la yow nga nga nekk animateur aussi euh, tey nga nekk nga leader bi si Sédhiou nga nekk di doxantu euh, tey est-ce que di nga continuer parce que ñit yi ñu ngi ne allègement euh, ni nguur bi dafa démissionné yow noonu nga ko gisee wala déedéet man ma ko noonu parce que nguuru nguuru yi dafa mel ni nguur goo xamante ni day dox ci li nga xam ni moom la société bi bëgg day dox ci li nga xam ni moom la peuple bi bëgg kon donc président Macky dafa nekk nit koo xamante ni day déglu population donc day xool li nga xam ni moo moom la moom moo arrangé population bi ñu ko defal ci kaw tamit ñuy respecté li nga xam ni moom mooy mesure bari barrière am na solo très bien donc euh, Abdoulaye jégg euh, nga lu mu wax uh-huh. mooy ñu mën a respecté état d'urgence bi mais police lu ma mën a wax daal mooy Sédhiou nekk na région boo xamante ne police nekkoon na fa jafe-jafe fii ci askan bi parce que dañu doon imposer population ñu sol masque su ñu dajaat ay xale ay nit soluñu masque dañ leen doon jël dugal leen seen oto dugal leen police ñu fay ay ay ay deux mille francs trois mille quatre mu nekkoon tension boo xamante ne dugg na fi trop mais ak sensibilisation bu autorité sanitaire yi dañ doon doon def ak jeunesse yi li ñu doon def ak wàllu mairie yi ak yooyu ñëpp jàpp gis nañu après les gens se mooy nga aar sa bopp donc nekkul ni policier moo war a tax nga tax sol mag gendarme moo war a a tax nga sol donc nekk na loo xamante ne Ablaye loolu lañ mën a jàpp lu ñu mën a jàpp aussi ci couvre feu bi ba léegi gis nañu couvre feu bi dafa jàppale trop gendarmerie nationale pourquoi mu jàppale ko parce que yoon yoo xamante ne trafiquants yi foofu lañ doon aw pour di yóbbu yamba di ko jaay en une semaine seulement Ablaye jàpp nañ kilogrammes de chanvre indien donc loolu yëpp nekk na ci liggéey yoo xamante ne couvre feu bi ak état d'urgence tax na ba force de l'ordre yi macha allah ñu wane nañ seen daal ci couvre feu bi ak état d'urgence Bakary Abarka merci beaucoup merci Bakary conté Sédhiou est-ce que Bachir